di am ak jaaxle ci li nga xamante ni moom nga ñu indil muy projet de boo xam ni dafay dàq ay élection te boo jëlee article 67 nos constitution dafa wax ni assemblée nationale ak ñi nga xamante ni moom mooy conseil département ak mairie yi ci article 107 boobu la nekk ñun ñoo am sañ-sañu ay député représentant peuple dàq élection ñoo sa am sañ-sañu jàpp date décret président la République ko signé te exposé motif bi nga xam moom nga ñu indil pour ni moom ngay sukkandiku pour rapport élection yi teguwul fenn ndax jamaa defe ni li tax ñu war a dàq élection benn war a nekk crise ñaar war a nekk guerre ñett war a nekk maanaam loo xamante ni inondation muy mbënn moo xamante ni tey comme ni ko mag Sall defoon ba tas Sénat lu mel noonu moo war a tax ñu dàq ay élection mais est bi da nga wax ni ci dialogue politique ci ngeen sukkandiku pour bëgg a dàq élection mais dialogue politique moomul réew mi moomul Sénégal te ñi fi nekkoon da leen a far pour cinq ans seen mandat war a jeex ñeneen wala faru kon jamaa defe ni def ay deal politique pour ni da ngeen di woote benn dialogue pour que manam yéen ngeen mën see def seen affaire lolu yaakaar naa ni du manam jox respect peuple bi ndax askanu si boppam noo demoon woote ji jël seen carte pour fal manam conseil département yi ak ñi nga xamante ni maire yi lolu bu amé mais il y a des possibilités lan moy nday yéen mënu leen a def délégation spéciale lutax tax mënu leen ko def délégation spéciale bu mu ko défé politique bi jeex ña fa nekk war a liggéey bu ko defee Sénégal yépp man see yam mais tey mënu leen a ëpp ay conseillers ay maires yi ci Sénégal ëpp ay président conseil département tey ngeen bëgg ñëw pour yokk seen mandat te liggéeyuñu askan wi te maire yu si bëree bëri tey bu ñu demoon élection suba dañuy daanu ndax seen askan jéppi nañ leen ndax seen doxalin seen doxalin ne ñu sàcc nañ xaalisu réew mi.

yow nan la lan moo tax mën a indi benn projet de loi pour maanaam war a doxal sa ministère nga war a def élection yi ci maanaam projet nga war a defal maanaam projet de loi bi Assemblée nationale war koo wote te woteeguñ ko ba pare xaalis bi nekkul maanaam ci budget bi man jàpp naa ni loolu nekk na faay boo xamante ne nii bu ko gën a rëy amul ndax da ngeen a war da ngeen a wane ni yéen élection yi si boppam xamoon ngeen dañ koy dàq moo tax nanguwu leen ko def si budget bi nga xamante ne mooy budget 2020 bi

te député toppe la député Macky Sall yi député yi nga xamante ne maanaam moom lu ngeen ne gong ñu ne gong lu ngeen ni ngay da ñu ne ngay da kon jàpp naa ni loolu rek day wanaka ni député yii moom yaakaar naa ne seen waaw la ñuy sukkandiku seen waaw la ñuy dox ndax force loi bi nga xamante ne tey indi ngeen ñu ko ñun duñu ko watee ndax deal politique la te deal politique duñ si ànd tey duñ si ànd rek ça vous remercie